asalaamaaleykum mbokki turfis yi mbokk yi seetaan seen émission naaru góor seen émission mag bii nga xamante ni mardi bu jot mooy am midi 30 seen treb mag bii nga xamante ni moom la ñuy wax le miroir du Sénégal di seetu askan wi TFM tey seen mbokk seen xarit ma jom bay peex ñëwati leen seen émission mag bii di gërëm bu baax ñi nga xamante ni ñoo safo émission bi di ko seetaan mardi bu jot midi 30 waaye tey maa ngi fii ci stade Léopold Sédar Senghor ma ñëw fi nag ci liggéey bu am solo ma ñëw fii ci loo xam ne si na lu am solo la ci course hippique bu Sénégal ndaxte dañoo taamu bu ñu dawalee ba saison bi tëj dañuy def benn assemblée générale président Cheikh Tidiane Niang ak ministre de sports yebal ay ndawam ñëw toog ñu waxtaan la bilan bi ñu def ci saison bi. tey jii nag loolu laa leen fas yéene indil seen mbokk seen xarit ma jom bay peex ci biir émission naaru góor maa ngi fii ci stade Léopold Sédar Senghor du ma sori dama ànd ak sama caméraman dugg ci biir. moo wal leen tey lan moo am ci ensemble général Cheikh Tidiane Niang la liggéey ci saison 2015 quinze mu liggéey lépp la fas yéene def ci kayit génne ko ci table ji nit ñi waxtaan ci càmbar ci waaye tamit beneen anam tamit amat ci ndaxte kii nga xamante ni mooy président Cheikh Tidiane nag ren jii lay jeexal mandaam xam naa ni mandat moom du fii lañ koy falee waaye après lañ koy fal waaye ci nag lañ mën a xoole ba xam Cheikh Tidiane nag den àggale kon daal mbokk yi damay ànd sama cameraman ànd ak seen émission naaru góor yeeyaa ak ki nga xamante ni mooy Aba ma ànd ak ñoom dugg ci biir wala leen tey ensemble général bi nan lay demee ni ma leen gisee ngeen di demee noonu la jàmmaar war a demee li ma gis léegi ci xale yi Sénégal benn xale tëddatul nelaw ba yàndoor xam ngeen ni maak yéen a nuroo ña fee rek la nu gëm góorgóorlu leen kontaan ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma Diop. nan nga gisee ensemble général bi kaddu yi nga xamante ni moo fi tukkee. waaw ka muy euh, bon d' abord maa ngi rafetlu woote bi président Cheikh Niang woote fii dajale fi ay kilifa waa ministère sport waa ministère de l' élevage waa LONASE ak ñi ngànk wàllu fas ñëpp si réew mi. muy euh, euh, muy dajaloo bu rafet daal li ma fi déggu daal macha allah dal na sama xel quoi bilan bi daal mën naa wax ni rafet na daal waaw loolu laa fi gisagul. ni ngeen ko yaakaare waaw mais course xam nga ñun ñun ñu dem ci course tout le temps war nañoo war a mën a xel defal suñu bopp sax bilan li daf ko rafet rek mu koy defarlu pour transparence ndax ab réew aussi ab benn structure boo mën a jiite aussi tamit boo ko jiitee ba at mi jeex nga war a entamer beneen saison war nga mën a woo ña nga ko seqaloo ni leen ah lii ak lii kat am na fi loolu lépp ci transparence la bokk quoi muy lu ñu rafet lu daal vraiment. saison bi na yàlla dimbali nañu ñu dugg si si bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabil alamin li nga xamante ne man moo ma si gën a frappé li ma si gën a neex. mooy détermination bi nga xamante ne CNG ànd na si ak euh, ministère des sports euh, am esprit d'ouverture euh, ubbi course yi permettre ba képp ka nga xamante ne bëgg nga apporte sa contribution nga ñëw jël journée nga dawal loolu nekk na la nga xamante ne ñun rafet leen rafetlu nañ ko parce que ci cadre boobu man laa ñëw ak sama label Welcome Events dawal cinquième édition Grand Prix de la Renaissance africaine ñu ànd si liggéey liggéey bu rafet ñu accompagner ñu bu baax. ba vraiment journée bi def une réussite totale donc euh, ñoom it soo xoolee calendrier bi nga xamante ne proposé nañu ko ren nekk na calendrier bu am solo donc dawal nañ vraiment une belle saison et que tout s'est bien passé dans l'ensemble loolu nekk na la nga xamante ne euh, rafetlu nañ ko ñuy ñaan mu yokk ak lépp la nga xamante ne lu ñu war a def déwén la rek ñu def ko si nu mu gën a gaawee parce que face enjeu yi dafa dafa metti frais yi metti na te ñi si yaakaar tamit bëri na lépp la nga xamante ne lañ ko war a def rek nañ ko teel a def pour fexe teel a ubbi course yi déwén pour am li nga xamante ne moo gën lu ñu amoon daw xamante ne daal am na si ay ay ay ay failles parce que classification bi nga xamante ne moom la ñu proposé mhm. waxuñu ne lu bon la de mhm. mais su nuñ ko defee ak nuñ ko appliqué. Euh, gis nañ ne am na borom fas yu bëri yoo xamante ne lor na leen am na fas yu bëri yoo xamante ne éliminé nañ te gis nañ tamit fas dina daw sax si catégorie boo xamante ne waru foo daw mm-hmm. ndax bu fas dawee si catégorie boo xamante ne daanaka kenn musu ko fa raw loolu wane na ne que ñooñu muy àndal ñooñu moom moo leen mën mm-hmm. te si calcul la ñu sukkandiku pour def ko donc loolu ça veut dire que calcul doyul mm-hmm. pour rek ñu classifier ñu classifier ay fas am na leneen luñ ko war a associer donc liggéey la laaj ak toog waxtaan xool ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na si wàllu boobu ñu toog étudier ko pour suñu proposer borom fas yi dara mu nekk la nga xamante ne du ay yeneen conséquences parce que fas metti na te c'est un sport national c'est l'intérêt général qui doit être visé ku nekk daara ku nekk Mbàkke ku nekk Louga ak fépp fu waay nekk foo xamante ne fas mooy sa bëgg-bëgg war nga am possibilité dawal fas catégorie yi nag nu ñu koy dafalee fexe ba képp ku si nekk rek mën si gis boppam mën na nekk xalaat la laaj bu ñu si waxtaanee ak ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na si wàll bi rek dinañ si trouver solution. parce que boo xoolee li nga xam ne am na daaw si grand prix de la renaissance africaine journée boobu man su ma koy organiser damay xool ñi nga xamante ne cinq fas yi vraiment ay crack lañ ay fas yu ay lañu ñu fexe nu ñu leen boolewee ñi ne si diggante bi ñu boole leen. ñi nga xamante ne course bi mu ubbee ba fu ñu koy dawalee. te ñu yaakaar si fas jotuñu am dara ñu xool tamit ñu leen dajalee may leen benn yoon cinq chance je pense que concept boobu noonu moom la ñu mës a demee avant classification bi di ñëw kon su classification bi ñëwee ñun ñu affiche loolu ñu gis ne que ñu euh, indi nañ si ay problèmes ya nga xamante ne il a fallu que ñu changer ko pour bañ a indi bañ a yàq journée bi donc loolu nekk na la nga xamante ne ñun mënuñu ko comprendre kon nag comme ñu ñëpp defar moom moo ñu parce que discours ki représenté ministre bi. ministre de de levage l'élevage madame Aminata Mbengue vraiment rassuré na ma parce que bi may ñëw sax euh, ñëw naa fi ak jaaxle parce que loolu lépp lu ma dencoon la. Mhm. mais bi waa ji defee discours am je me suis rendu compte que que ministre bi jël na facteur yu bëri en considération mhm. et que it defar tax na koo jug ba insister ci pari mutuel urbain bi nga xamante ne mooy source de développement bi en réalité parce que pari mutuel urbain moo mën a permettre machine bi di autofinancé wu finan finan financé wu donc xaalisu course normalement si pari mutuel urbain la war a jóge te pari mutuel urbain pour mu am sens il faut que catégorie yi ñu koy defee si noo xamante ne kenn du xam kuy raw hmm. donc il faut toujours ñu siy réfléchir xool nu ñu koy defee ba mu gën a bëri pour possibilité yi gën a bëri donc bi ma déggee si discours am sànq mu insister si loolu ba pare insister si dialogue pour nit ñi toog waxtaan xool li nga xamante ne moom moo gën pour le développement des courses loolu vraiment ça m'a ma siy remercier encore une fois ministre bi Pape Is moo tax euh, propriétaires yi bari ci course bi gu Sénégal boo nee boo ñi boo ci wàññee dix doo àgg onze. waaw li tax propriétaires yi bëri wuñu seen normal parce que course fi mu àgg tey li fas course di jar dafa cher dundal fas metti na donc tey jii nii c'est pas évident nga gis jeune boo xamante ne mën na si investir loolu problème la tey jii nii ñëpp xam nañ ne que boo demee à Daara Jolof demi yi lu mu fay jar cherul. soo amee un million un million cinq ba deux mën nga am sa fas donc su fekkante ne classification bi ak catégorisation yi sóoraale lañ classe boobu noonu ba xool nuñ leen si insérer rek loolu dina gën a yokk nit ñi ñëw si fas parce que munoo am njëgu demi cent bëgg ñëw di rawante koo xamante ne quinze seizième wala trente trente trente et un trente deuxième de cent la am su ngeen àndee benn yoon ñaari yoon ak fas nu mu méttee da ngay bàyyi donc mooy comme li ma wax sànq rek suñuy xalaat dañu war xalaat. acteurs yi nga xamante ne yëpp dañ siy intervenir ñi nga xamante ne gis nañ leen ne génn nañ ñu posé wu question pour xam lan moo tax ñu génn ñu jëm si apporter solution donc yaakaar naa ne loolu suñ ko defee xool xool niveau yëpp na naka la ñuy arrangé pour ñëpp bokk si créer yeneen catégorie yoo xamante ne ki am doole dem fi ki am doole dem ki am ki ki ki nga xamante ne mi ngi si diggante bi dem si diggante bi ki ki nga xamante ne demi-sang la tolool sport national la bépp sénégalais daf si war a bénéficier wu ku nekk li dooleem laaj rek mu dem foo xamante ne moom moo ko arrangé. mais suñ tamit problème prix bu baax nekku ci. waaw euh, ku dugal sa xaalis góob nga génn waaw problème mu prix bu baax loolu maanaam mooy comme lu ñu wax rek lépp mi ngi basé woo rek si euh, paris mutuel urbain dëkk yi nga xamante ne course dafa développé yëpp dañuy organiser ay paris seen fas yi daw loolu mooy base bi. te loolu li nga xamante ne moom moo koy permettre mooy créer ay catégories yu bëri pour saay suñu proposer PMI rek mu am incertitude mooy maanaam ñu bañ a xam kan mooy gagné donc loolu pour ñu def ko il faut catégories yi gën a bëri il faut fas yi gën a bëri il faut propriétaires yi gën a bëri te système mu classification bi nga xamante ne moom la ñu def donte am na sax foo xamante ne mën na jëriñ mais nuñ ko appliquer nii. dafa dafa dafa dafa dafa dafa wàññi lu bëri si course dafa éliminer ñu bëri si course mu nekk la nga xamante ne mbirum doole la te suñ demee ba mu yàgg nag mun nañ dem ba dootuñu amatu ñu rawanteel parce que tamit dëkk jamono dafa metti ñi ngi sant yàlla di gërëm di remercier yéen journalistes yi ngeen xam ne euh, ginnaaw yàlla yéen yaa di yóbbu affaire yi yàlla ñuy wane yàlla ñu tax affaire yi siiw comme nag yéen nañuy njëkk delloo njëkkal parce que seen liggéey metti na boo la ñëwee di def yenn liggéey kon dañ leen war a sant mais lu ma ñëwee di si assemblée générale bi en tant que propriétaire ñu ñuy sant yàlla ba ñu duggee si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin assemblée générale bi nag yàlla def na ñu ngi koy ñi ngi fekkee nan ko mais euh, war nañ gën a mën a toogaat gëstuwaat am na parce que am na yenn affaire yu bëri yi nga xam ne mi ngi si biir war nañ ko mën a gën a pour régler problème yi. yooyu affaire yenn affaire la. affaire la mais bu ñu waxee yi dañoo bëgg mu dox comme question Pabis en tant que jeune boo xoolee course bi bëriwul ay jeunes propriétaires parce que mais mun na nañu investir si jeunes yi ñuy ñëw mais day fekk affaire yi di dox buy dox comme jeunes yi nga xam ne bëgg nañ dugg si course mais bu affaire bi doxul du ñuy ragal comme ni ko Pabis waxee war nañ xoolaat catégorie yi war nañ xoolaat financement yi ak prix yi ñuy tagal propriétaires yi parce que prix yi tamit boo xoolee yi fi maa yu nekkoon moo fi nekk ba léegi un million la ñuy dawal un million satisfaire wuñu parce que léegi fas yi cher nan léegi da ngay gis sa benn fas bu ndaw rek ñu fay le prix de ay dix millions quinze millions jëm kaw comme nag état moo ñu war a dimbali jàppale ñu. état mooy doxal. CNG bi c'est bien beau ak président mais état bu dugalul loxoom si course rek góobu ñu gaaw a egg fu ñu fu ñu fu ñu war a dem. assemblée générale bi bon ñu koy rafetlu parce que euh, assemblée boo xam ne la d'information la. pour permettre euh, CNG bi wax euh, at bi lan lañ ci def euh, fan lañ toll lan lañ nar donc ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. nan li nga xamante ni moom lañ ci wax baax na wala. waaw baax na baax na c'est à saluer parce que yéene bu baax boo gis lu baax la mais comme li ma lay wax rek li ma ko tàmm waxee il faut ñu yokk yokk bi mooy il faut que ñu jël ay nit ñoo xam ne xarañ nañ par rapport ak yenn poste de responsabilité ñu dimbali ñi nga xam ne li ñu def baax na. Euh, am nañu yéene ñi fi nekk euh, làbbali nag euh, taxula fas day yokk li muy li muy li muy def donc li ñuy ñaan rek mooy ñu am manager am na mag ñoo xam ne ñu baax ñoo xam ne ñu ngi liggéey gàcce ngaalaama boole ko ak xale yoo xam ne aussi seen loxo set na am nañ xam-xam am nañ liggéeyanti ñu boole leen lépp pour course hippique dem kanam. dama ndee daf nii. man borom fas laa. nee moom borom fas la. si bureau bi laa nekk. ci bureau bi ne. amul kenn koo xam ni. ne amul kenn koo xam ni. mën naa taxaw ni. mën naa taxaw ni. bureau CNG. bureau CNG. yóbbu nañ sama dërëm yóbbu nañ sama dërëm. dama ni. ne kon nag. lii ñu yenu. lii ñu yenu. dañoo war a dañ leen a war ñaanal yàlla. dañ leen a war a yàlla. yéen bu diis la yéen bu diis la. xam nga wax nañu bilan bi léegi. ne wax nañu bilan bi léegi. li leen LONASE di jox. leen di LONASE di jox. waaye la sa des. waaye la se des. fu ko jëlee fu ko jëlee. wax nañu Iba Baawo. wax nañu Iba Baawo. di toppatoo nañu di toppatoo nañu. bégal suñu xol bégal suñu xol. dañ leen a war dañ leen a war a sant. gërëm leen gërëm leen. léegi nag ne léegi nag. li ma yore nii ne lii teraanga bi mu yor nii. waa Tiwaawan waa Tiwaawan. ñoo ni ñoo ni. kontaan nañ ci Cheikh. kontaan nañ ci Cheikh. Tiwaawan. Ah, ah, ah, Tiwaawan. dawalul woon dawalul woon. Cheikh Ñang Cheikh Ñang moo ni moo ni damay dawal Tiwaawan damay dawal Tiwaawan. waa Tiwaawan ci boppam. waa Tiwaawan ci boppam. bi cadeau bi. ñu yëkkati ko ñu yëkkati ko. teg ko sama loxo teg ko ca loxo. waaye man nag defuma ci dara. waaye def ci dara moom de. waa la waa Tiwaawan la. ñu ne naa ñu ne naa ko yëkkati. jox ko président Cheikh jox ko président Cheikh Niang. ni Cheikh Niang ni Cheikh Niang. kontaan nañ ci moom kontaan nañ ci moom. jërëjëf. voilà merci. ndeysaan président mi ngi noonu di décorer Major Fall Major Fall nekk kenn ci course hippique bu di ko décorer ndeysaan président Cheikh Tidiane na nga noonu jox na ko trophée bi mu nekk benn guy. bu nu remercier les ministères yi fi nekk sport ak élevage passage la délégation du ministère de l' élevage ngeen waxal ma Aminata Mbengue Ndiaye xaali càmmiñam mi ngi koy nuyu et à travers cela le CNG des courses hippiques ndax taxawu nanu taxawu na région yi taxawu na département yi ku xewle xam ngeen ci dara Louga xam na ko national xam na ko Daara xam na ko Tivaouane xam na ko loxoo ma nga ca biir guddi ak bëccëg du ma gudd nag ndax guddi na mais dama bëgg a wax rek nii bu nu toogee fii ñëpp toog may vice président chargé des finance xam course ni muy doxee nu am président boo xam ni lu nu manqué mu génne ko joxe teg fi ah du onk uh-huh. du jooy uh-huh. Uh-huh. du jooy loo ñu soxla rek wuti na ko loolu nag li tax mu ñeme ko ñaar le président de la république Macky Sall dëgg la tàccu leen loolu waaye gars yi wax leen dëgg dëgg la dëgg la bu loolu weesoo nag ki nga xam ni nag moo nuy dimbali te Cheikh Niang wax ko léegi te ma ñeme ko muy le directeur général amadu Samba kan dama ni waaju am njëriñ a ngoog Cheikh Niang danaan ma nu nuy def ma ni ko bàyyil ma dem ma ni ko wutal ma audience mu wut audience ñu ñëw mu recevoir ni lu ngeen bëgg Cheikh ni ko Ibba waxal yaay sunu mag mu ni waxal ma ni ko 36 millions la ñu bëgg mu ni ana lettre bi ñu indi lettre bi mu si daal di woo madame Bagidi ni ko baawalaa la booleel suba commencé di ko ko jox ma dem ñu wàññi 36 millions jox nu attention loolu du caaxaan les relations de Cheikh Tidiane Niang nag ak le directeur de la LONASE loolu moo am solo te ñuy ñaan yàlla nag li nga xam ne ñoo ngi xaar ci moom euh, madame euh, euh, la direction de la communication waxanu directeur ni ko sant nañ ko ci sunu kanami kilifa yi muy élevage sport ak suñu président d'honneur ak tout ce monde turfis ni ko ñoo ngi koy gërëm ndax lim nu defal xam nañ ko ñuy ñaan yàlla nag ndimmal day gaaw sàmbaay ko waxoon jiw jóge na fi mu ni gaawal dem yóbbee ko saako ceeb gaawal def nangam ni ko nag ndimmal day gaaw ñoo ngi xaar sunu 2 pour cent gars yi tàccu leen ci 2 pour cent yi 2 pour cent 2 pour cent 2 pour cent 2 pour cent 2 pour cent ba léegi sa ngeen di demee. ndeysaan ñu ngi noonu nag di joxe meilleur jockey meilleur jockey moo nekk noonu nekk Mohamed Dieye nekk jockey bu mag meilleur jockey ngook 2015 Mohamed Dieye moo ko jël xale bu yaru xale bu mën a dawal tarkalla moom la ñuy décorer noonu meilleur jockey 2015. Mama Dieng noonu mi lay zokke mooy waral Papis Niang Papis Niang noonu di ko jox kare bi lii mooy course hippique foofu mu soxla la. meilleur amateur de course hippique El Hadji Mbaye trop di si kontaan bu wér a wér di ñaanal samay waajur di ñaanal si supporter di ñaanal mbépp coursier di ñaanal suñu waa écurie déwén yàlla def ñu jëlaat meilleur sooke ak meilleur entraîneur waaw. loolu sant yàlla rek suñu borom bu la boo koy xëccoo ak say juróomi mu ak say fanweeri morom yàlla jox la jox la ko sant yàlla rek ndax dàqoo leen tere ne mënoo leen xëy na lu yàlla jagleel la ñu ci sant yàlla daal. et nous au niveau du ministère des sports c'est ça qu'on attend des dirigeants des fédérations des dirigeants des comités nationaux lan la ñuy xaar ci ñoom que vraiment que ñu am volonté ak détermination bañ a xaar wékku rek ci jàppale leen pour mën a dem am yeneen dem partenaire ak yeneen ay initiative yoo xamante ne permettre ñu développer te seen activité moo tax vraiment ñu kontaan si trop di leen si encourager di leen si féliciter te xam naa équipe bi gën leen gën a jàppale tuuti rek dinañ yóbbu ko si équipe fu sore sore sore sore lii bànneex la boo xam ne assemblée générale bi yow gisu ko mosu fi am li ne ci nit ak li nit ñi exprimé mhm. ak bànneex bi nga lii ci kanamu nit ñi war mhm. nga xam ne lii la nit ñi bëggoon yàlla def ko mhm. ñu ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla renouveler ñu suñu mandat ba ñu mun continuer accompagner leen parce que boo gisee ñu def lii la liggéey ci saison bi euh, moo tax ñun CNG lépp lu ñu mën rek pour defal course ñu ngi ci parce que loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu jik loolu mooy li nga xam ne ñuy séntu kon nag maa ngi leen di yéen gërëm yéen au passage la presse parce que joué boo xam ne bu am important parce que yéen ñu accompagné bu lu woon yéen tey di ngeen liggéey boo xam ne macha loolu daal laa amoon lu ma ciy wax maa ngi lay fay ma Diop mais tey ñu def ensemble général ñu décoré la nu gis ensemble général bi yéen waa CNG ak décoration bi waaw euh, sant yàlla la ñuy def euh, Euh, li nga xam ni mooy assemblée générale bi dañ koy rafetlu ndax euh, dafa doon loo xam ni du woon obligation pour comité mu def ko mais course hippique euh, jàpp nañ ni benn famille lañu te lu ñu fi nëbb amu fi structure d'exception la ñu amee muy comité national de gestion CNG du fédération mais rafet na tey ñu woo nit ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal at mi yëpp wax leen li nga xam ni lii moom la ñu jot li nga xam ni moom lañ dépensé fi ñu toll ci li wàllu liggéey ak li nga xam ni moom la ñu dëgmal ndax euh, séddoo dafa gën a rafet ci anam bu mu mën a doon rek donc looloo tax may rafetlu man assemblée général bi nga xam ni bii tey euh, def nañ ko te nga gis conditions yi ñu ko tenir aussi ak leneen loo xam ni mooy wàllu wàllu décoration bi nga wax nii dafa doon loo xam ni xëy na daf may ñaax pour que lu ma newoon ma gën ci sawar. mais jàpp naa ni euh, ñun euh, soxlawuñu pousse pour ñu tàkk. yi ak français yi nga xam ni dañ ko def industrie yóbbu donc loolu daal mooy suñu ëmmam mooy suñu mébét loolu la ñu bëgg nguur gi jàpp ñu ci pour que ñun tam ñu am lu ñu doxal suñu réew.